kon baax na dégg ngeen ko wax ju am solo boobu Idrissa Ndiaye wax ko combat Modou loo Ama Baldé damaa bëgg rek nga ñëwal ma ci tuuti Idi li ma bëgg njëkk a xam mooy combat Modou loo Ama Baldé est-ce que dina am le 13 mars. xam nga combat boo xam ne signature yi boobu ba mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi yàqu. Hmm. te jëlaguñ ci matuwaay gu ci war. Hmm. suñ ci jëlul matuwaay gu ci war. Hmm. te man sax suma ma sañoon combat bi du am. lu tax loolu Idi. promoteur bi investir xaalisam mu tëdd fa bu yàgg. xam nga dinaa la xamal ñaar nga koy dégg ji li gis nga combat boobu. Mhm. bis bu jël amee. si mhm. ñaari côté yëpp. Mhm. di nga dégg lu la naqari ci biir stade boobu. donc ko jortu. donc ko gis lu ma gis nii la. 2022 bi dina bëri luy xew di xewaat. 2022 bi dina bëri ay déception. 2022 bi dina bëri ay yaakaar yu tas. yàlla nañ ci yàlla musal. déggoo lu ma la de dina bëri ay yaakaar di dina bëri looy séntu ba nga foog ne ma ca mu yàqu. combat bi su sa sañoon dañuy ñoom ñu waxtaan ak promoteur ku nekk delloo promoteur bi sa xaalis ba keroog yàlla di ko tëgg mais do do actuellement nii nii nii li ci am moo ña moo xaw a moo commencé départ doonatul combat. loolu ci mystique la wala mbëri yee génnee sarax yu ñu war ta laal wala dañoo commencé. xiifante je me rappelle bien. Euh, benn bantamba lañ doon seetaan kër ñoom Ama mu ngi mu ngi ci kaw ñuy préparer contre guy gi ñu wane Modou Lo rek mu taxaw. Mm-hmm. ne kii laa soxla. xëy na moom fàtte na ko mu ne laa soxla ma ne ko yow yow ñëw ñu préparer suñ combat bi kii laa soxla kii sama bët fii laa teg. nga xam ni kon loolu lu yàgg la lu yàgg bëgg la. Mm-hmm. Modou tamit di ko bàyyi xel bu yàgg. ndax Modou xam na ne lu mu yàgg-yàgg làmbam ak Ama dina taxaw mu koy bàyyi xel bu yàgg waaye nag yàlla baax na. Hmm. waaw yàlla baax na. loo ci gis. li ma ci gis mooy xam nga nee naa la man côté Modou Lo dama fa may am di jàmm. am fa dóor mu daanu dégg naa dina am ci combat am na ñoo xam ne yanu ba ci kaw dool ci suuf sax. waxuñu ko de mais nee na sëlëm sax dinañ ci am sëlëm su allah. su bi jege incha allah ci kàttanu yàlla. Hmm. wala suñu nee suba la combat bi soo ma hmm. dikkee micro la. ah kon kay mooy combat bi dina am idi. waa déggul ma dama la xam nga euh, euh, maanaam lu jege seegul moom du ma ci waxagum mais suñu nee suba la combat bi xëy na sax dig ma gis parcelle googu. incha allah nga ana Modou xarañ loo dama la xëy na di ma gis parti nee naa la. mooy Idrissa Ndiaye day de. am na ay transhumé na léegi transhumant wu sëriñ. jugee na ci Ama Baldé. non non dem na ci Modou Lo. non non la jugee na ci ci ci ci ci Balla Gaye dem na ci Modou Lo. sëriñ yi ngi transhumé daal. kër soo fay dëkk. kër soo fa dëkk ay locataire hmm. te may ñu la nooy def. locataire tëxu bu dee bëgg nga jàmm. waaw ah. léegi ma dëkki ba parcelle. locataire yëpp bëgg ma am ak man jàmm. ña jege borom kër gi bëgg ma di ma jàppale di ma suturaal di yëkkati di am seeni problème di ma ko ma leen koy saafara di ma sant ay liggéey mais soo dee gor borom kër ga lu mu nekk war nga caa nekk. kan mooy borom kër gi. borom kër ga mooy Modou Lo. Hmm, kon da ngay ñaanal Modou. non bu baax li ma wax la. borom kër gi am soxla di la ko wax nga ko koy fajal. déglu te Modou Lo mooy borom kër gi. soo dëkkee ci kër. waaw ak ay locataire amoo fa jàmm. Ah. nga dem ba parcelle. Ah. dëkk ci biir kër ga. waaw ah. yi may la jàmm di la jàppale di la yiir di la yëkkati di la jox. borom kër gi. dégg locataire yi. Ah. di la jàppale di yëkkati seen alal di la jox di am seen problème di la ko wax. Hmm. locataire yi suñ joxee bopp borom kër gi. Hmm. sooy jàppale koy jàppale borom kër gi ngay jàppale. dëgg la. te ñooñu noonu samay nit lañ dañuy déggante ay seen numéro WhatsApp maa ngi seen lépp. Hmm. te yow su lii jeexee dinaa la kan ak kan ak kan la ci. wan la kii nga xam. à part Modou Lo kan ngay ñaanal ci làmb ji. doomu doomu musuma laa gis nga wàcc stade ànd ak doomu dàngu. Mhm. wàcc stade dañ pour naan ànd ak Modou Lo contre Jordan contre dafa waroon am de. idi mi doon wàcc ak idi mi gisatuma ko. mais du question loolu. idi gisatuma la non non déggul ma xanaa. idi mi daan takk ndigali benn seconde bu xonk. <laughs> sol lu xonk li takk baxale boobu ci bopp bi. loolu <laughs> idi boobu ah. baxale boobu bari ay kii. ay car-care bu ngi nii sama xarit bi. yaa ngi yaa ngi dégg baxale bi maa bëgg. ma wax la ñaar nga koy nga koy dégg. Hmm. gis nga euh, euh, doomu sama mbër la sama xarit la. Hmm. waaw mbëri bëri naa si ay xarit de. Hmm. bëri naa si ay xarit bëri naa si ay soppe. ak yére yére bu xonq ba. yére bu xonk baa ngi ne yére baa <laughs> lan lay xaar génn lu tax solo ko. waaw dina génn incha allah ci kàttan yàlla. lu koy gis nga premier jour bi may teg sama tànk si làmb ji di indi mbër. Hmm. àdduna di gën a xam. idi mbaa indi mbër daanu. boobu ci kàttanu yàlla di daanu. bu soobee yàlla ak yonent bi. di vaar am na de. déggoo ma xanaa. te booyee ak ñoo gaaw ci TikTok déggoo lu ma xanaa bu bis boobaa. sama xarit nga de. bis booy dañ lay TikTok de. déggoo lu ma bu bis boobaa ci kattanu yàlla. Mm-hmm. yow bis boo ma séenee si làmb ji ma dugg ci du ma sol lii de. Mm-hmm. beneen melokaan ngay gis Idrissa mel ko boobaa di nga ba ma loon fekk këram ak Idrissa ba ma loon gis si image yi kanamu Idrissa bi beneen kanam la. jili mën nañ te yàlla may nañu. kon ñu xaar Idrissa Ndiaye le 13 mars incha allah mu wàcc arène nationale. man daal waxuma la le 13 waxuma la le kii demal la ci kattanu yàlla bu soobee yàlla ak yonent bi. Mhm. Idrissa mbër bi muy njëkk a àndal fii moo xam fu mu munti doon jour boobu àdduna. Mhm. dinañ taf seen làmmiñ.